ben waxtu jot na file ci makkaanu global télévision GTV yam ak waxtu len leen xibaar la ci gëna fess bokku na ci ñu bari ñu fas ko faram faati ci bir jotay xibaar jëm na ci société civile bi daal di addu nak jëm ci li ñu dippe pacte de bonne gouvernance nga xamanteni na sakku nañ ko ci njiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay ngir mu daal di ko sàllu leneen tamit bokku ci li ñu xamle di nak engagement yi nga xamanteni mom moom njiitu réew mi jël na ngir mu daal di ko sàlloo leerali ci bir jotay xibaar lay doon. nañu àdd nag jëm ci lii nga ne mooy wàllum politique ginnaaw taxawu Sénégal ak kii di parti socialiste bi ñu ndërmeeloo nag ci élection yi ñu génn ñoom ñaar ñooñu da ngay xool nees nañu mooy dafa boole seen doole mu doon benn doon nag mbir moo xamante ne ni indi na nag ay kàddu yu daal di jukk ci ñaari parti leer yi tamit ci biir jotaay xibaar yi lay doon nañu dem ba dëkk bii di Mudéeri yi di am nag lu toll ci fanweer ak juróom-benn lii di chef de village ba ñu daan ko nag tabb gannaaw nag bi ñu sosee dëkk ba ak léegi wala nag ba askan wu yëkkati ay kàddu wax nag la ñuy xaarandi ci moom mi nga xamante ne moo di njiit gu yees ku dëkk boobu. yi la ponk ñooy ponk yi gën a fës ci jotaayu xibaar dañu toftal ñaari pàcc xibaar yëglekaay daal di xëy fësal xibaar yi buur ñaan lante léeg la ñu tàbbi ci gi. bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokkoon na ci liñ leen jundoon ci ndorteelu xibaar yi jëm nag ci lii di société civile bi nga xamante nag mi ngi daal di ëmb ci ay organisation yi nga xamante ne ñoom société civile ñoo ca bokk daal di pe seen bopp lii di sursaut citoyen ñoo nag amal nag di fàttali kii di njiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jëm nag ci ay devoir yi nga xamante ne war na koo jël waaye tamit daal di sàlloo lii di engagement yi nga xamante ne nag daal na ko am daal na ko jël jëm nag ci daal di lii di xool nu mu nees na mën a def ba daal di mën a appliquer lii di pacte de bonne gouvernance gi nga xamante ne daal nañ ko wax bi la mbir nag ñu ngi ko daal di xamale ginnaaw nag bi ñu doon amal li nga xamante ne moo di ab ndaje ni ki gaaw gi waral nag ba ñuy daal di jébbal ab bataaxal moomu njiitu réew mi dañ ci ànd ay leeral ak ay ba bi mu doon amal niki samedi bi ñu wéssu collectif bi ñuy sur sursaut citoyen et demain nek collectif bi nga xam ne nek ŋànk mbooleem kuréel yi nek ci société civile bi ñaax na waaye itam fàttali na njiitum réew mu bees mi nga xam Sénégal tabb di président Bassirou Diomaye Faye mu daadee rek respecté engagement yi nga xam jël pacte de bonne gouvernance bi nga xam dina mëna tax mu jité jité bu jaar yoon tam bu set. waaw yaakaar naa ne ki nga xam ne moo fi nekkoon njiiti réew yu bëri yi nga xamante ne diggoon na ko askan wi defu ko ba tax na askan wi loolu lañ ko mari woon ba tax ñu wàccee ko may ñaax nag ki nga xamante ne mooy njiiti réew mu bees bi mu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax xam nga ne askan yi moom boo diggee ñoom dara te defoo ko rek mun na indi réeroo seen diggante ma am yaakaar daal ki nga xamante ne moom la fi yàlla teg li mu diggee ak askan wi dina ko motal. pour être dans ce pacte avec le peuple sénégalais. Bine collectif nak pare ngir gungé ki nga xamné moy njitum njiitum réew mi ak mboolem ñi nga xamné dinañ taxaw ngir rek respecter li nga xamné moy pacte de bonne gouvernance li ni mel nak la xamlé mom mi di Penda Mbow nekk kenn si ñi ŋànk bile kuréel li ni mel moo tax société civile dafa am solo ndax dina mën a accompagner waaye itam taxawu ki nga xam ne mooy njiitum ndax itam il faut nga nangu changement yi ñu war a def dafa am doole donc dinañ mën a taxaw non seulement ñu encadrer waaye itam ñu dugal suñu loxo ci bépp politique bi nga xamante ne dina am ngir rek ay coppite mën am pacte national de bonne gouvernance nak nek ab ben document bi nga xamante ne jëlee nañ ko ci ndaje ya amalon ben fan ci weerub juin ci atub 2008 diap ñaar fukki fan ak ñent ci weerub mai ci atub 2009 bi bile pacte nak ñu saytu ci ay réforme yi nga xam jëm na ci wàllub institution tam bi bile pacte li ko tax ci waxtaan ak déggoo càmbar ba waxtaan ngir mëna am politique bu dëgër waaye tam bu dal ci lu jëm ci wàllum élection économique sociale. jërëjëf Aïssatou Ba ñu wax nag ci li nga xamante ni mooy séminaire gouvernemental ngi doon amal ak kàddu yi nga xamante ni moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati woon na ko fa gannaaw nag mi ngi ko doon teewal teewal ci alg ci gaaw a gi moom nag mu daal di xam ne nag li nga xamante ne ni mooy taxawaayu lii di ministre yi ak secrétaire généraux yi jëm ci liggéey bi nga xamante ni daal di nañ ko dénk ngir daal di xool nees nañ mën a def ba daal di gën a ñongal seen liggéey waaye tamit daal di mën a fexe rek ba li nga xamante ne ni moo jëm rek ci jafe-jafe askanum Sénégal mën ko daal di gaaw saafara doon na kàddu yi nga xamante ni moom njiitu réew mi daal na ko yëkkati nag ci séminaire bi ñu doon amal waaye tamit di xam ne nag moom mbébétam wala it bëgg-bëggam mooy bu ñu ji jugee ci séminaire maanaam njeextalu séminaire gouvernemental bi rek ñoom ñi nga xamante ni ñoo di ministre yi daal si nag mën a am ay prox ndoll yoo xamante ne mën nañ koo jël fexe rek ba daal di mën a jël réew mi teg ko nag ci raay yu baax waaye tamit nag fexe rek ba seen cànk ñu daal di ko mën a jéeg gàddu gën a mën a sàlloo mel rek moom njiitu réew mi daf leen fàttali ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy ministre yi seen liggéey tolluwaay waaye tamit lan la daal di aajo naan nag bokk na ci li nga xamante ni rek moom moo jëm ci li nga xamante ne ni moom mooy seen aajo wala bokk fi nga xamante ne ni mooy pilier fondamentaux ci yi nga xamante ni ñoom la seen liggéey daal di taxawu ci ministre yi bokk na nag ci lii di honneur ak disponibilité ak lii ñu dippee nag oyofa di humilité ak lii di compétence doon kàddu yi nga xamante ne moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati woon na ko ginnaaw bi ñu doon amal lii di séminaire gouvernemental bi ñu desandi ci walum politique nak wax lu ñel parti socialiste ak li di taxaw sénégal gënaaw nak ñom ñaan ñëpp bu ñu ndërmeeloo ci élection yi ñu génn mom parti socialiste bokkoon nak ci coalition bi di benno bokk yakar ñàkkoon nak nekkon ci pouvoir waye dal di ko ñak taxaw sénégal yi tamit nak ñak ci li di jogante nak sen xalaat ñom ñaar ñëpp bokku na ci nees nañu mën a def ba dal di bolé sen doole mu doon ben ñi nak di parti socialiste gënaaw nak bi bureau bi exécutif yi doon daje ñom nak dal nañu amal nak ab bilan xayma li nga xam xamante ne ni moom mooy élection yi ñu génn la ca tukkee ci ay jafe-jafe ak i sooxi ak i sooxital waaye tamit nag ñu daal di àddu jëm ci ñi nga xamante ne ni seen i naataango la woon bokkoon ak ñoom lii di parti bi tey jii bokk nekkuñ fi nees nañu ma def rek ba daañu dellu siwaat ci biir uh, parti bi ñu àndoon benn doon nag mbir moo xamante ne yëkkati na ay kàddu jëm ci ñaar yooyu nag buñ sukkandikoo ci kii di Momar Talla Gueye bokk ci taxaw Sénégal dafa jàpp ni mbir mi dana xaw a jafe lool ndax it nag taxaw Sénégal du benn kuréel rek ca nekk di parti di PS am na yeneen kuréel ca bokk leeral dañ ci ànd moom Momar Talla Gueye daal dañ ko jokkoo ci téléphone. waaw léegi xam nga bu ñuy wax wàllu retrouvaille wàllu euh, tasewaat diggante taxawu Sénégal ak euh, lu parti socialiste du ma ko waxee doon sax damay wax ni bu fekkoon ni tey jii dafay am mais gisewaat dajalowaat bokkowaat ci ñi nga xam ni ñooy la grande famille socialiste la grande famille de gauche loolu ça serait une très bonne chose parce que foofu la ñu war a dem nag foofu la ñu war a dem fii ci Sénégal nga xam ni dañuy dem sur les grands ensembles nga xam ne dafay am ñett ba ñeent nga xam ne à chaque élection bu amee ñoom ci seen biir dinañ waxtaan def élection seen biir tànn benn candidat su ko defee kenn ku nekk dem ci Sénégal yi mais dagaan seen i baat proposer leen wax leen lim yéene ci réew mi ngir mën a ngir réew mi mën a jëm kanam léegi su fekkee dañ ko jël ci diggante maanaam ñuy wax taxaw Sénégal ak parti socialiste kese kooku daanaka presque wàllu mën nañ ko tuddee xaru bu taxaw Sénégal à l'état actuel des choses mën nañ ko tuddee su boobaa taxaw Sénégal dafay xaru la koy waral mooy euh, biir taxaw Sénégal du waa du ay socialiste rek ñoo fa nekk ñu bëri ñoo fa tase ay entité yu bari ñoo fa tase am na ci ñoo xam ni militants yi ñi xam ñoo ci ëpp mosuñoo militer parti socialiste mosuñoo dugg sax maison du parti mosuñu sa fa sax jaar

addu wax ci leneen nag jëm ci kaaraange ci kaw tali bi ginnaaw nag mi ngi ci nemmeekoo lii di ay jafe-jafe di nag ay yu bëri yoo xamante ni ci waxtu yu ñu génn yi daan nañ ko nemmeeku file ci biir réew mi doon nag lu jaaxal nag askanu Sénégal nañ ña ca yëngu ca secteur ba bu ñu sukkandikoo nag ci kii di secretaire général bu kuréel bi routier yi di bu Sénégal di góora a xumba kàddoom bokk na ci nag li xam ne li li waral yële accident ñu nemmeeku doon lu bari lool ci réew mi bokk na ci nag ci ñàkkum. ànd ak ñàkkum yaru ñenn ci chauffeur chauffeur yi ci kaw uh, tali bi waaye tamit nag ñàkk respecté li ñu dippee code de la route ak yeneen yoo xamante ni nag daan na ci bokk leneen itamit mu daati ko xamle moom Gora Khouma jëm nag ci tali yi nga xamante ni daanaka nam waroon mel melu ko ci jàkk ndax dafa jagadi bokku na tamit ak lii di oto yi nga xamante ne ni daanaka ñoom tamit seen état newatalu jaar yoon bokk na ci lii daal di sooxe yi la accident dañuy ànd ak moom mii di goro xumba kii di suñu ndaw lii di Ndella Ndiaye jokkoo naa moom ci téléphone. wax naa ko waxaat ko te danaa continuer wax du fekkee ay mesures moo koy di déedéet wàllu comportement moo koy dindi nit ku nekk da ngaa war a jaayanteeg yàlla ca la ngay def moo xam yaa moom oto moo xam yaay dawal oto moo xam passager bu jéggi tali nga moo xam borom jur nga moo xam lu mu mën di doon kenn ku nekk da ngaa war a jaayanteeg yàlla xam ne lii mooy li gën nga def ko parce que accident amul kenn ku ci mën a gisee bénéfice amul bénéfice lépp perte la marchandise bi du yàqu oto di yàqu kon gisoo fu am benn fenn ku ñu am gagnant amul loo xam ne nag boo ko defee personne bi ciy jëlee lor ñeneen gisuma ku ko war a encouragé tali yi dañoo war a yaatu leer borom jur gi xam ne tali yi dañoo téye seen jur nit ñi jéggi tali xam ne ñoo jéggee xam ne wuru ñoo jéggi tali bi ci neexee loolu nag bu amee entretien am ci oto yi oto dafa war am entretien oto dafa war am pneu yu baax oto dafa war a yeb lu mu war a yeb ci marchandise dafa war a yeb mais benn boo ko dépassé rek jëye dina ñëw loolu lépp nag mi ngi tegoon nag ci boo contrôle routier bu baax contrôle routier bu fekkee nag jaar na yoon yooyu yëpp ñoom ñoo fi toog pour buur ñoom ñoo mën a régler bare bare bare kon kii contrôlé na jaayanteeg yàlla man mi dawal oto bi naa jaayanteeg yàlla même passager yi dugg ci oto bi nañ jaayanteeg yàlla ñun ñëpp nañ jóg nag pour ne accident du am mais moo gën ay mesure mesure boo fi mën a indi ndax daw guddi moo indi accident mais accident ak dina yomb. gannaaw moom Gora Khouma ñeneen tamit daal nañu ñu yàbb bi jëm ci accident yu nemmeeku lu toll rek ci semaine daal nañu nemmeeku ñetti caay ay accident ñaar fukk ak benn ci doomu aadama ñàkk seen bakkan waral ba chauffeur yi ñu daal di dajale ca gaar bu Colobane njëkk ci nag seen i kàddu wax ñoom seen xalaat li jëm ci accident yooyu. ñu jàpp rek ni bokk na ci lii di oto yu yàqu yi nga xamante ni ni baaxut waaye tamit tali yi nga xamante ni daanaka leerut yaatuut wala itamit ñu daal sàkku ci seen i naataango ngir ñu gën a ànd ak dal ànd ak itamit yar ci kaw tali bi waaye nag li ñuy joxe lii di permis de conduire ak yenn ñi mel tamit daan nañ ci yéeyaa bi dañ ci ànd ak leeral ak suñu naataango bi di Mansour Diassé en tant que chauffeur moom vraiment accident yi bari na te tamit euh, kuy chauffeur doo am lu la la ku sañoon tey jii boo liggéeyee da ngay wacc dem ci kër fekk seen njabot waye nak xey ñu ni ñun bu déggé sé ñu ne bar accident ne ñun ñëpp dañu am lu nakari ñun ñëpp dañu am naqari kon amu du ñu am ci lu neex. suñu saa sama xalaat moy nguur gi mom na defar télé bi te wañi montage yi bu télé bi normalé nga wañi montage yi dinañ xam ni liggéey ak boba di nga liggéey ci té ak bakkan amna ñoo sax montage taw du ndawal normal dañu sekkatal auto ñew bëgg gëdd pour montage bañ ko japp pour bëgg a laa nga beneen oto bi génn pour dem xam nga lolu manam ñak sécurité moko waral. waaw ah, bo paré ñaxaat sama mbokk chauffeur yi rek pour ñu gëna responsable seen bop xam li ñu yor xam responsable bakkan yi nek seen kanam seen seen ginaaw quoi ñu fexe kuñ yeb rek ñaan yalla yobul leen ci jamm à part lolu tamit euh, jangat bi ma ci am bëri na parce que fan yi yeb ma ngi dégg ñuy wax né chauffeur yi ñuy kaas daw guddi gi nga xam ne dañ leen koy téré minuit légui ya ngi gis accident bi ñuy wax ay heures 19 h lañ wax ñu ngi dégg ñu naan chauffeur doon yàkkamti pour bëgg balaa ñu koy baare pour du fanaan si àll bi lay baare nga fanaan si àll bi xam naa loolu tamit bokk ne mooy waral accident yi dem ba diwaanu Mbour file ca Caajaay wax nag ci kuréel gii di waar yi nga xamante ne nii moom ma ngay sensibiliser jëm nag ci xoñañal ak nag nañuy jàpp di euh, tuutale ak di ñàkk doyadal ñii di soxna yi rawatina nag ñii di tànk yu jigéen ñi ñu ko daan xamal ak càpp ñu ko daal di xamal càpp projet Euh, plan d' action woo xamante ni amoon nañ ko mu nag projet bu ñu daal di organiser jëm càpp randonnée pédestre di woo nag ñii di soxna yi ngir ñu daal di gën a xam li nga xamante ne mooy seen taxawaay waaye tamit nag gën a daal di doon benn daal di xeex nag lii di violence maanaam métital ak naqaral gi nga xamante ni ñu ngi leen koy naqaral loolu waral rek ba ñoom acteurs yi di leen woo ñu ngir di woy tamit ñii di woy juri

ak prise en charge ci xalé yi nga xamné dañ leen di sakku ci walu euh sakku manam dañ ñi nga xamné dañ leen di méttital ci walu sey moy ñi nga xamné ay violence sexuelle lañ leen def mais aussi ñi nga xamné dañ leen di teel a maye muy mariage d'enfant lool motax tay message yi ñuy gën a lancé mooy que xalé yi ñu gëna euh, taxaw ci li nga xamné moy communication parents enfants di déglu seen ay parents di waxtaan ak ñom mais aussi au niveau de leurs écoles bu ñu demee aussi di déglu ñi nga xamné moy mooy seen jàngalekat yi ak seen mag aussi ñi dem fi nga xamné ni tay structure de santé ba dañ fa créer lu ñuy wax ben espace ado espace ado bobu nak buñ fa démé lépp lo xamné lu jëm ci walu information la ci sen wergu yaram dinañ fa mëna am ay information ba mëna xam ñom lan lañuy fagaro nan lañuy mëna arrêter sen bop donc li buñ ko gissé suñu xel day dal di ñaan aussi que projet bi au lieu que mu yam fi ñu jéma xol ñun bu partenaire bi retiré wo nan lañuy def ba mëna a activité yi yi nga xamné ñu koy def ñu mëna pérenniser ak yi ñu fi am jërëjëf assou Sow ca diwaanu mbur mooy ki ñu taataanal yile kàddu bu ñu jógee nag ca Caajaay dañuy daw wutali fii ca Tambacounda wax nag ci dëkk yi nga xamante ni moo di Mudiri ginnaaw bi ñu ko sosee ca atum 1907 ki nag di Mudiri nekk ca frontière bu Mauritanie daal na am ab njiit gu yees di nag chef de village bu yees. muy wuyoo ci turu gaay Ndiaye ndoon nag li nga ki xamante ne nii mooy fanweeri ak juróom-benneelu lii di chef de village dëkk ba. wala nag ba askan wa yeewoo foofu yëkkati ay kàddu di daal di ko biral li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci euh, moom. Euh, nag bokk na ci mu daal di saafara seen i euh, jafe jëm nag ci wàllum dund waay ak wàllum nekk waay li jëm nag ci wàllum école ak poste de santé ak yeneen yi ni mel doon na nag solo su ña yeewoo ci dëkk ba ñu daal ko biral xamal ko nag ki nga xamante ne ni moom moo moom moo nekk seen njiit gu yees ba di gaay njaay nag di gaay njaay dañ ci teewlu ay leeral ki nga xamante ne ni moo di Sohibou Ndiaye nekk notable lii di Moudiri ki ko teewal ki taatal ay kàddoom di Amadou Diallo

doon jël nguur nguur gi dafa gaañoon fekk ñoom nekk xalé dégg nañu ñun am nañu benn sëriñ bu nekk côté si saraxole côté bakkel yoyu nañ ko dem séti mu dimbali ñu ñaanal ñu ki fa jógee euh, giraan buuri ji leen lu tudd mu ñëw mu déeri nag nekk dëkk bo xamante nak mu ngi ci boru frontière ak réew Mauritanie la nak lepp li nga xamante nak nekk na fa ci jumtu kay doomu dëkk bi nga xamante ni ndax ñu ci bëri ñu ngi ci biti réew ñoom ñoko fa daal di def moo tax na ñuy sakku rek nguur gi fi nekk tamit ñu gën leen bayyi xel mu déri on peut dire que mu déri Moudéri ma mémoire est bonne depuis 1607 du dëkk bi existé jusqu'en 2024 c'est vrai c'est que à part s'il y a euh, épidémie mais gis gaay yi ñëw vacciner xale yi dem mais à part ça lépp à part ça lépp lu développement bo xamné état bi war na ci def euh, loxom daanaka ñu gis ñu ko lan moy loolu dëkk bi lu ngeen soxla ndox courant formation des des des des élèves école centre de santé tout ça là ñu ñoko def di moo gaay yi di jogé fii di dem France ak Allemagne ak euh, ak yeneen dëkk parce que loolu kenn mënu ko def fi investissement bu lourd la il faut nga dem bitim rew loolu waral nag ci élection bi ñu génn sax ci walu présidentiel wa Moudéri ñom danaka opposition bi lañ voté loon li ñu mel rek ñu am yaakaar ci ñi nga xamante ñom ñoo yor rew mi jamono yi nak ñu daal leen di taxawu te tey seen jafe-jafe bu gën a mag rek mooy ñu defaral leen yoon bi nga xamante ni moo dox ci diggante nag Moudiri jaare ko Diawara ñëw ba Bakel yoon la boo xamante ni mu ngi ci nekkin bu doy waak bu nawet jotee kenn du génn ci dëkk boobu jërëjëf amaru Diallo ca diwaanub Tambacounda ubbi waneenub xët jëm ci wàllu mu tàggat yaram wax nag lu ñeel Ligue 1 file ci euh, Sénégal ak Teungueth FC yi nga xamante ni mu ngi gën a dëgëral lii di toogaayam ak ginnaaw bi mu amee ndam ci kaw euh, Sonac ci kaw euh, Sonacos moom nag nekk njiitalu lii di Ligue bi daal dina rek gën a dëgëral taxawaayam gannaaw bi mu amee lii di fukk ak ñaari victoire di ab ndam bi mu dalalee nag kii di Sonacos ci gaaw gi daal di ko dóor naka noonu nag moom mu am ñaari défaite rek jëm ci gannaaw bi ñu fubalee lu toll ci ñaar fukki ak benneelu journée bi euh, kii di gone yi Cheikh Gueye di ngay gën a wéy di waral seen bopp ca bile championnat waaye tamit di gën a dëgëral li nga xamante ni moo di seen taxawaay buñ jugee ci Ligue 1 bi dañuy nag yi tamit ci Ligue 2 bi wax ci li nga xamante ni moo di Oslofa moom itamit nag ca Ligue 2 moo nekk ca kaw bopp ba am lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari poñ ginnaaw nag bi mu daal di génnee nag daal di fekk ji équipe bi di Ndiambour ca dëkkam daal di ko dóor ñaari bal ci benn moom nag Ndiambour jël nag lii di fukk ak benn place bi am lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti poñ. bi la nag mbir bi la bi match mi ngi amoo woon ci uh, dibéer gi doon nag lu tëj liir ñaar fukk ak benn la journée wi ñu doon uh, football uh, ci Ligue 2 bi file ci Sénégal nag noonu nag lii di NGB gannaaw nag bi mu nekkee ci juróom-benneelu place bi am ci toll ci fanweeri poñ daal na rek amaat lii di àpp ndam gannaaw bi mu daal di fekk jël lii di Seneps mi jël juróom-ñeenteelu place bi am ñaar fukk ak juróom-ñaari poñ. daal di ko fekk dóor ko benn bal uh, ci dara mu mel rek moom mi ngi dellu siwaat ci li nga xamante ni moom moo jëm ci course bi gannaaw nag ñeenti poñ rek dox ci digganteem ak li nga xamante ni moo jëm ci qualificatif ci lii di remontée bi lii nag kii di wàll daan nekk ci ñetteeli place bi am na toll ci fanweer ak juróomi poñ daan uh, joué ci gaaw a gi waaye nag moom dafa mel ne daan nañ ko dañ ko daal di uh, dóor ndax nag dañoo xam ne dafa daal di raté lii di place am ngir mu daal di mën a yëkk ca kaw naka noonu nag ñoom Thiessois yi ah, doon di nag doon doon seen ñaareelu defet gi nga xamante ni daan nañ ko am ñu dóor leen ñaari baat ci benn seen digganteeg AS Douanes la mi nga xamante ni moo jël ñaareelu place bi am lu toll ci fanweer ak juróomi poñ naka noonu itamit nag HLM bu Dakar nekk ci ñeenteelu place bi am lu toll ci fanweer ak ñeenti poñ daal dina conserver lii di ñeenteelu place gi moo am ndax nag dafa daal di dóor lii di cees da ko daal dalal dalal Thiès FC dóor ko nag lii di ñetti bal ci benn moom Thiès FC nag moo yor jël lii di fukk ak ñaareelu place bi am lu toll ci ñaar fukki poñ Amitié FC ak mi nga xamante ne moom moo jël juróomeel place bi am lu toll ci fanweer ak ñaari poñ daal na euh, dóor ki nga xamante ni moom mooy Kër Madior benn bal ci euh, dara naka noonu itamit nag moom mu jug nekk ci fukkeele place bi am lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benneele poñ bi daal na am tamit ab victoire woo xamante ne am na ko daal dóor li nga xamante ki nga xamante moo di Demba Diop ñaari bal ci dara. ci xëtu yëglekaay bi ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum tàggat yaram la ñu pàcc gi njëkk ci li euh, ci li gën a fës ci euh, xibaar yi dañuy toftal ñaari pàcc yi ak li yëglekaay xëy fëseen ñu daal ànd la ko